السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi gannaaw bi nu sante yàlla suñu boroom cant gu yelloog jëmmam ju tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi muy sayidil wujud wa alami shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dellu siwaat nañu ak yéen ci suñu émission miftaahul huda fii ci suñu télévision safina tv di nuyu suñu mbooleem auditeur ak auditrice yi nga xam ni ñu ngi ñuy déglu ak dinu seetaan dinu dégloo ci 98 point 2 waaye diñu seetaan ci safina tv ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen baal xaq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla boole ñu jéggal nuyu bu baax suñu kilifa suñu wëyjur Cerno Xaamidu Yoro Baan ñaanal ko yàlla mu may ko fan wu gudd lool bu ànd ak wér-gi-yaram ci barke yonent bi alayhi salaatu salaam ba li mu yéene ci diine ji yàlla mottalil ko ko waaye li yéene ci daara yi yàlla mottalil ko ko وهي اللي مجيني تم طريق سيد الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه تكر مامم شيخ الحاج عمر تكر مامم سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنهما يالا مايكم موتلكو تلخو ويجرم سرينم سبيم كليفام لبم تشرن محمد البشير تال يالنك في يالا يقل تم أندق وير ci barke yonent alayhi salaatu wassalaam mu mel ni gannaaw nuyoo yi ak ziyaara yi dugg nañ ci weer wu tedd wu màgg wu barkeel muy weeru rajab rajab nag buñ ko tuddee xel yépp dafay dem ci al israa'u wal miraaj maanaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam guddi gi mu jóge dëkk bu tedd ba mu gane woon jamono di màkkatul mukarrama jëm dëkk bu tedd ba nga xam ni ay yonent yu bari ña nga woon tëdd di baytul muqaddas guddi googu di guddi gu rëy di guddi gu màgg waaye guddi googu itam ci la sang bu tedd bi sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa جيجي فوفو بيت المقدس خطي اسماني يك اسماني جروم نيار خطي لين دم بسدره المنتهى واي دم بغيسيك سونو بوروم جل جلاله وعز كماله مو جخو كادو بوري جخو يتم سويتاسو ادنا اك بو الاخره تي لولو موي جولي جروم تي لولو غاي ديغي ني كون ويرو رجب weer la woo xam ne wu bari ay teraanga la wu bari ay ngëneel la doy na rek ñun la weer wi ci la yonent bi jóge woon màkka dem baytul muqaddas loolu rek doy na ngëneel yonent yépp yàlla dekkal leen sang bu tedd ba nekk ca seen kanam di sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jiite leen julleem googu mu leen jiite et sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu bind na ko baayam Cheikh Al Hadj Malick bind na ko mag ñu baax ñu nu yàlla am ñu nekk ci réew mi yépp kenn ku nekk guddi googu sot nga sa xalima bind ci ndax la ndax màggaayu guddi gi waaye ak barkeelu ci guddi gi waaye ak barkeelu ci ki yàlla teral guddi gi muy sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye ak barkeelu ci yonent yi nga xam ni topp nañ ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli kon bu weeru rajab ñëwee weer la woo xam ni bu julli doon am anniversaire dañ naan weer wii di guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar guddi googu mooy anniversaire u julli kon weer la woo xam ni danga naan jullit bu nekk war nga ci bare looy julli maanaam war nga ci bare looy la laa bëgg a wax ndax julli farata yi moom dafa war saa su ne waaye war nga ci bare looy la waaye tamit jullit bu nekk itam war nga ci taxawaat xoolaat say julli xoolaat ñi ngay jullee xoolaat révisé waat julli révisé waat sa faratay julli maanaam nafaraat sa faratay julli nafaraat sa sunnay julli waaye nafaraat say démonstration si julli say kàbbaru armal say taxawaay say rukon say sujjóot yooyu yëpp war nga ko nafaraat sa njàngin sa fatiha saaruwan ceytak sàbbaali taaye ñaani yooyu yëpp war nga ko nafaraat ga xoolaat ko lu tax war ko nafaraat xoolaat ko mooy julli mooy jaamu yàlla gi nga xam ni su baaxee mbooleem jaamu yàlla yi baax na waaye bu amee sikk nag mbooleem jaamu yàlla yi mooy tuul dana am sikk moo tax mag ñi nee nañu suñu maam cheikh alxaaji malik si radiallahu taala anhu mag ñi ne ni mu daan jànge waqafu alquranul karimam waqaf mooy bis bu nekk li nga sas sa bopp ni bis bu nekk danaa jàng alquran ñaari xizib wala danaa jàng ñetti xizib wala danaa jàng fukki xizibu alquran ab juróom comme ni ko waa kër maam alxaaji rawxaan ngom radiallahu taala anhu bu paal di defe nga ni bis bu nekk danaa sasoo nangam jàng ko loolu mooy waqaf مجنين لك مام شيخ الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه نمو دان وقف القرآن ديكو جانغ نونو لدان وقف تيري بينا قمني عبد الرحمن الأخضري رضي الله تعالى عنه موكو بند تفق تموي الأخضري ني مام بسبنك مام شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دان جل باب في الزهوي commencé ci bunt ba baabun fi zawi ba ba laxdari bi jeex lépp Cheikh El Hadj Malick nafar ko dégg naa mag ñi dañ ko daan laaj ni ko moom Maodo lan moo tax bis bu nekk nga jël babun fi zawi diko nafar mu ne comme moom mooy defar julli buntu bi moy buntu bi nga xamni bo amé amee si baada bo amé si jootu xabla soo yokkee soo wàññee soo juumee si julli gi lolou yeb buntu bobu mo lay tegtal moo lay joxañ ñi ngi koy defaree mu ni loolu moo tax ma koy jàng ndax comme moom julli lay yéwénal te su julli yéwénee lépp yéwén loolu tax ma koy nafar pour sama julli lu ci am gàkk-gàkk wala lu ci am dëng-dëng wala lu ci am rëq-rëq ma xam fi may teg sama tànk ba jubanti ko ndax comme bu julli baaxee lépp baax kon naa fexe julli baax te julli itam dafa am lu koy baaxal li koy baaxal mooy fiq kon fiq bi koy baaxal te baabul fi zawi bi nekk téere boo xam ni al axdari sax laay wax téere bi yëpp nekk téere boo xam ni mag ñu bëri jaar nañ ci ba ci cheikhana ahmed tijani chérif radiallahu taala anhu ba ci cheikhana cheikh alhaaji omar al fuutiyu radiallahu taala anhu ba ci cheikhana cheikh mahamadul gaali mag ñu yiw ñu tedd ñu sell ñooñu borom cër yu rëy yooyu ñoom ñëpp jaar nañ ci téere boobu mu ni looloo tax man bis bu nekk ma nafar baabun fi zahab kon nga gis ni kenn ku nekk bu weer rajab ñëwee war nga nafaraat say julli war ko defaraat muy weer woo xam ni weer wu bari nga ne moom weeru rajab yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ëllëg yowmal qiyaam ñi dekki ñu bari dañuy xiif bu ñu dekkee dañuy dekkiwaale xiif dañuy dekkiwaale mar nee na ba mu des woorkatu weeru rajab yi ñi nga xam ni dañuy woor weeru rajab ñoñu buñu dekké duñu xif buñu dekké itam duñu mar yàlla ñu ci yàlla boole ci barke yenente bi boole ci mboolu mi jullit ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma do yenente bi nee wër wi di rajab ku ci wor ben fan te ban kay wor dara taxul nga wor ko luddul nga jamo ko yàlla subhanahu wa taala moo tax fekk ab julit nga yaangi jamu yàlla sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne سي ديرك دي دم الجنة يلا إن شاء الله بولي تباركين انتبي عليه الصلاة والسلام مي وير وقم نيتم مانام اي تيابام دنكو فل خمغ جانج نتي القرآن من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها سو بن بين باخ يلا دفع لي فاي فوك يباخ waaye su bee weeru rajab bi soo defee benn bu baax dañ la koy multiplier ba mu mat juróom-ñaar fukk dañ lay fay juróom-ñaar fukki yiw kon weer la woo xam ne weer wu bëri ngëneel la weer la woo xam ni weeru jaamu yàlla la weer la woo xam ne weeru julli la weer la woo xam ne weeru woor la weeru woo xam ne weeru rëccu la mooy tuub ndax tuub mooy rëccu rëccu mooy tuub jàng nga ci laxdar yi bi ma tudd léegi wa shurutu tawbati a nadamu ala ma faata kon boo rëccoo rek tuub nga soo ni woon lii bu démb doon tey dootuma ko def rek yéeg dugg nga ci buntu tuub mooy wa shurutu tawbati an nadamu ala ma faat kon weeru rëccu la te mooy weeru tuub waaye weeru julli ci sang bu tedd bi la sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaye weer la woo xam ni weeru tudd yàlla sunu boroom kañ ko màggal ko bàkk ko jox ko li mu moom lépp te bu ma nee li yàlla moom lépp mooy lépp yàlla yàllaay borom kon weer la woo xam ni ci la yàlla defaloon yonent bi teraanga jooju rañaane ko mu fekk ko ci kaw mu terale ko mu romb yonent yëpp terale ko mu xotti asamaan yi terale ko mu dem ba sidratul muntaha ànd ak àndandoom bu sel bu tedd bu màgg ba mooy jibril sa maam cheikh alxaaji malik si radiallahu taala anhu nee na rafiquhu mooy jibril moom la àndaloon bi muy ubbi asamaan yi تبارك الله moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ba sidratul muntaha xaritam ba soppeem ba jibril dem ca taatu dem nga toog sang bu tedd bi ne ko lu xew mu ne ko fii sax ma yegg si tey musuma fee yegg si ci sa barke moo tax ma yegg si fa tey waaye fii du ma ko weesu su ma ko weesoo leeru yàlla yi daf may lakk wa ma minna illa lahu maqaamun maalumun koo fi gis dafa am place buñ ko xamee place buñ ko jagleel bo xamni fofu rek lay yam fi sax ya tax ma yegg sifa fa sang bu tedd baag boroomam nak mu xotti kiiraay ya nag dem ba ak yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko jaamu gi tay wàcc ci wer wi di julli mom la alquran di la nettali leen suma dana fa tadalla fa kana xaaba khawsayn aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazaba alfuaadu ma raa من رسول الله صلى الله عليه وسلم دمنا na يالا comme xala ak xocc manam flash ak fett gi ni ngui xecce bu boom gi di waja lal bant ba nga takkoon ne digeenti diggante muhammad sallallahu alaihi wasallam ak suñu borom bu sel bu tedd bu mag bi jalla jalaluhu wa azza kamaluhu non la nee na ba mu defee nonu nak sang baa ngi naan yàlla suñu borom bu doon jëm jo xamne juñu ju lal la wala jëm juñuy gis la kon jël naa sama ñaari bëtu oom yi mu dis ko ci ñaari bëtu oomam ya jël naa sama ñaari tenq yi ma teg ko fii ci kaw poojam yi su doon jëmm la waaye yàlla du jëmm eh, booba nag la yàlla ni fa awxaa ila abdihi ma awxaa ma kazabal fuaadu ma raa nee na foofu nag ci laa wax yoo sama jaam muy sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li ma ko wax yu mooy ci laa ko xamale ci laa ko sole ci laa ko inkwale ci laa defee ci moom la ma defee ci moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn moom rasulullah sallallahu alayhi moo gën ñëpp ci jukko moo gën ñëpp ci bind moo gën ñëpp ci jëf moo gën ñëpp ci lépp moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon kooku nag indil ñu sérité boobu mooy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi kooku nag la rañaan yàlla jox ko juróom fukki julli mu andi juróom fukki julli yi nag jox ñu ko kene boobu ñooy def indil naa leen cadeau boo xam ne su ngeen ko téyee texe àdduna texe àllaaxira indi naa leen loo xam ni si ngeen ci jàppee seen àdduna jag seen àllaaxira jag kon jullee ngoog kon weeru rajaba ngoog na ko julli ñépp fonk di ci jaamu yàlla ku ci mën a woor dil woor di leen ci naafile lu bari di leen ci jàngal quran di leen ci zikkar di leen ci tuub bàkkaar waaye nag lu ñu mën a ñaan nañ ci boole ñaan yàlla subhaanahu wa mbas mii nga xam ni moo nekk ci àdduna bi yépp يالا جيلي ko fi ci barke yonent صلى الله عليه وسلم واي waaye ماغي maa سما بوب دي bopp جولي نيب اك ñëpp ak سيتان ييب تي بير ريومي اك بيتيم ريومي mi فاتي bitim réew فاتي فك سين بوب bu leen fàtte fekk seen bopp yonent bi nee na woon al wiqaayatu xayrun min al ilaaj yi fagaru moo gën faju te comme wax dem pour fagaru ci feer feebar bi ndax nit ki su wérul doo mën jaamu yàlla yàlla na yàlla may ñëpp wér may ñëpp kàttan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.